asalaamaaleykum alaikum beaucoup auditeurs auditrices yi ñi seetaan ñu delluwaat ci émission invité du jour invité du jour mi ngi dalal tey koo xamante ni kilifa la ci réew mi ñu bàyyi ko mu présenté boppam sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ngi leen fay yéen Allo TV Dakar man la Asbiram Fay, doon opérateur économique ici à Thiès. d'accord. Asbiram ñu gis ni démb da nga organiser macha événement boo xamante ne ñëpp la ñuy coow ñëpp moom la ñuy coow boo xamante ne moo fa nekkoon ce 24 décembre c'était dans quel cadre. voilà c'était dans le cadre de la jeunesse rek pour bégal sama ndaw dëkk sama ndaw région parce que boo waxee Thiès rek wax nga Sénégal donc 24 décembre nekk jour boo xamante ne jour bu spécial pour les enfants ñu def tout pour décrocher Wally Seck pour bégal sunu waa région c'était possible d'accord ñu bëggoon xam yow lan moo la poussé à faire du social gis nañu si yaa ngi yaa ngi yëngu bu baax si lépp luy social voilà comme lu may faral di wax rek mhm. ñun euh, nous sommes pas des politiciens mhm. donc mën nañu nag nous sommes des hommes politiques mhm. mais nous sommes pas des politiciens euh, te boo nekkee si àdduna nekk euh, ndaw di liggéey dama yaakaar ni lépp loola yàlla warsagal rek mm-hmm. da nga ko war a partager ak sa say dëkkandoo mm-hmm. ak sa waa réew mm-hmm. moom moo waral euh, lépp lu ñu am rek dañuy ñaan yàlla yàlla def su sunu xel ñu bañ koo lekk ñun kese bokk ko ak suñu waa réew loolu moo waral bés boobu ñu jël sunu moyens yëpp indiwaale seek pour partager fête bi ak la jeunesse thiessoise dama gis ni ñu gis ni danga bëgg jeunesse bi lu waral loolu waaw parce que jeunesse mooy avenir mhm. jeunesse moom mooy mooy réew dañu mën a wax mhm. parce que ndaw su amul jeunesse bu baax rek avenir am baaxul donc loolu moom moo tax ñuy def tout mhm. di lëkkaloo ak jeunesse bi di leen dolli si sunu expérience ak sunu xalaat di leen wax fi ñu war a jaar ak fi ñu war teg seen tànk su feetu waree feetu ñu ànd ak ñoom feetu voilà loolu moo waral loolu d'accord gannaaw lépp li ngay def ci jeunesse bi macha allah population bi bëgg la naw la tamit ñu ñu gis ni dañoo bëggoon nga nekk maire de Thiès loolu lan moo ci sa xalaat ñu gis ni tamit homme politique yu bëri ñu ngi la ñu la ci bëgg jàppale lu waral loolu tamit. waaw loolu tout le temps nit ñi dañ may woo di ma ko wax. Mhm. mais xam ma dafa fekk ni boo nekkee si dëkk rek. Mhm. Eh, nekk ak sekk ak ñëpp jàmm. Mhm. ñoom nit ñi xëcc loolu day dem ci seen xel. mais loolu man nekkagul ci sama xel wax dëgg yàlla. man li may def defuma ko li ma la wax sànq rek ni la euh, du ma politicien homme politique la parce que aduna lépp politique la donc loolu moom moo tax mënuñu wax ne duñu politique duñu mhm. politique mais pour jël maire ak yooyu vraiment mhm. bokkagu suñuy projet mhm. mais suñuy projet daal mooy lépp luy développement ñu def si sunu loxo ba képp ku ne mën see gis sa bopp et pour le moment si lancé boobu la ñu nekk mais ñu gis ni tamit yow jeunesse bi moo la tax a jóg te bi ñoom dañoo bëgg nga nekk maire yow lu tax mënoo jëf sacrifice boobu noonu. waaw waaw xam nga sacrifice nga wax. Mhm. sacrifice dafa xaw a doy nag. Mhm. waaw mais nag incha allahu lépp mhm. rek am nañu staff boo xam ñu ngi liggéey ak ñoom. comme ni ma la wax ne newal ko sunu xel. mais ñi ngi xool même bu dul man. su mënee doon keneen si bi rek. kooku mën nañ ko pousser mu dem donc loolu yëpp lu ñuy étude la bu ñu xam ne ngi koy mm-hmm. def mm-hmm. di ko xool mm-hmm. mais man wax dëgg yàlla euh, sama bopp ak sama xalaat daal nekk ko si mais ñi ngi créer tamit benn mouvement boo xamante ni fan yu néew dina dina génn daanaka lépp pare na mouvement boobu tamit mouvement la buy liggéey ci social parce que man social rek moo ma ñor donc loolu nag bu demee ba laaj ko si ñoom ah ñu xool kenn rek choisir ko si d'accord euh, ñu jot a xam yan Euh, programme nga jot euh, am fii wala ay événement yo jot def de ci programme mm-hmm. social. Mm-hmm. parce que bo les ñun dañuy jël suñu doole. di ko prison mm-hmm. donc dañuy dem hôpital. dañuy dem euh, fépp fu nga ni wax mais les handicapés. nekk fii au sur la région de Thiès. dañuy jël suñu doole ak xalaat ak sunu am-am di ko fa yóbbu donc si loolu lañuy lañuy lañuy ñuy dox si année bi aussi lépp loo xamante ni dajale nañ ko rek dañuy xool si point yooyu ñu def fa sunu doole mais lépp si discrétion du loo xam ne dañuy indi média ak yooyu di ko siiwal dugal nga ma sax ma wax ko waaw mais nag vraiment ñun si loolu rek la ñuy dox si social rek génnuñu ko benn yoon ñu gis ni nekkoon nga émigré maanaam nekkoon nga extérieur pendant plus de 20 ans nga dëkkoon fa tamit looy paas ban message nga mën a passé euh, jeunesse bi dem clandestinement maanaam di jéggi par la mer wala di def naka su dul noonu lépp pour bëgg a dem. waaw loolu moom du rafetlu wuñ ko sax. Mhm. parce que ñun defe naa bi ñuy def émigration boobu Europe melagul nii. Mhm. mën nañu sax boobu Europe neexoon na. Mhm. mais man bi ma njëkkee def Europe. gis ay sénégalais yu fa nekk. am yenn âge poussé. li ma njëkk ñaan yàlla mooy lii yàlla bu ma fi dal. dama ne fii yàlla naa fi def bu dee deux trois ba cinq ans ñibbiwaat sama dëkk liggéey. parce que Europe dañ fay wutee di départ. mais du lu ñuy toog. continuellement donc euh, may ñaan jeunes yi. que ni Sénégal ku fi toog. liggéey yi bari na. soo ko jéemee yàlla dina dimbali. jarul dugg ci gaal jarul dugg dara nañ toog fii liggéey euh, parce que Afrique mooy avenir bi. donc defe naa ne Europe ñoom noppi nañ ba pare. Mhm. ñu suñu dëkk moom la ñu war a construire. Mhm. ñuy ñaan jeunesse bi ñëpp ñu toog gëm seen bopp. Mhm. jéem a liggéey pour tabax seen réew ëllëg. d' accord euh, ñu delluwaat tuuti si sa parcours yow nag nag euh, liggéey rek parce que man si administration laa nekkoon. Euh, yàlla def ma xëy benn jour rek. ma toog xalaat ma ne man daal. naa dugg si dans le monde business xëy démissionné dem Europe toog fa presque def naa fa dix ans bi ma ñëwee la ma fa jot a dajale ma ñëw di si liggéey nekk un promoteur immobilier donc taxawal fi benn staff boo xam ne ñi ngi liggéey ak man donc àdduna moom lépp loo nekk da nga koy gëm donc loo gëmul booy jaay gerte sax soo ko gëmee yàlla dimbali la mhm. donc loo gëmul rek doo si am dara mhm. waaw métier boo mënti dugg mhm. am na ñu siy torox am na ñu siy am lu ne donc loolu gëm-gëm bi nag moo la koy may mhm. boo gëmee sa bopp gëm ni lii fulla ak fayda moo la fay eggalee mhm. foo laal rek boo tegee mu dem ndax sunu borom mooy dimbali ñëpp voilà waaye as dafa am lu nit ñi xaw a umpale ci moom as biram dañoo bokk maam góor gu ñuy wax Cheikh de Calaw Seck ca mooy suñu maam maamam bu jigéen mooy moo moo moo mag sama maam topp ci dañoo bokk maam maamam di woon benn wëli boo xam ne nii Cheikh na Cheikh Saad bu moo ko seexal euh, nit ñi nag euh, duñu xool ndax moom sëriñ la nit ñi nag euh, du ko waxee nag du ko doxee dafa bokk ci famille bu bu am doole boo xam ne nii

loolu nag daf ko donne ci ay maamam ak joxe li nga am nga koy bokk ak doomu aadama yi loolu laa xam ci moom. waaw jërëjëf donc euh, kontaan naa trop ci laaj bi ndax ki euh, may laaj moom dañoo yàgg euh, boo xamante ne yàgg nañu ànd ñu xamante nag bu woon sax fii donc ñun ñaar on s'est connu en Italie. à travers un ami commun, le directeur général de Allo Dakar mais muy nit ku baax koo est ne euh, ku nangoo liggéey mais au-delà de tout ça c'est quelqu'un qui a besoin dafa dafa dafa tout le temps il a ko doon sax draayee <laughs> parce que tout simplement vraiment

turam ak santam yéen ñëpp équipe bi as mën naa si wax lu bari lu bari bari kon duñ paré fi ak euh, li ñuy def fi mom suma xarit la bu yàgg mën naa wax ni sa romb nen xarit parce que bi may xamanté mom je crois que c'était en 2004 suma suma djumul depuis 2004 ñun ñaar noo nekkoon woon euh, France après nous jóge France dem nek nek Italie bi nek Italie après fof la nek dëkk nañ sax ma moom ah maanaam moom dëkk nañ je crois ay ñaari at si biir lolu man après man ma ñëk ñibbi quelques mois après nous ma delluwaat nous and man ak euh ñëw Sénégal bo ba léegi moom mu entreprise man ma créer sama entreprise mais bobu léegi dañuy and ma xam ko mu doon ko xam ambition bi nga xamanteni mom la am Sénégal am ko fi ci Thiès ñëpp di ko rafetlu da fay def boole wu ci wax té loolu dafa am solo ci doomu aadama idée yu mu am bi nekké Europe bi mu ñëwee fii yooyu la fi teg. Euh, ñu gis ni tamit euh, le directeur général monsieur Bounama Fati dafa incité trop pour ñu ñëw fi tay Thiès seetsi la ngir def interview bi ak yow ñu bëggoon xam tuuti sa relation ak euh, monsieur Bounama Faty. voilà monsieur Bounama Faty daf ma xam on a fait presque maa ngi koy wax sànq 30 euh, ans presque def nañ ko man ak moom nekkandoo Europe demandoo si dëkk yu bari. Mhm. maanaam moom bokk nañ sax kër. Mhm. ñu xamante bu baax. Mhm. Euh, moom it mu xam ni man ku gëm liggéey laa moom it mu nekk ku gëm liggéey mën naa ne man ak moom sax ñoo ñibbisee doo Sénégal mm. benn année jour bi ñu ñibbisee maa moom dafa taal oto ba taal oto ñu jiit la dawal oto ba Sénégal jële ko Italie kon xam nga kooku am na lu ñu lu ñu lu bari mm-hmm. mu gëm liggéey nag man it ma gëm liggéey donc yàlla mu jël yoonam ma jël sama yoon presque dix ans ngi nii mi ngi si yoonam ma ne sama yoon mm-hmm. ba tey ñu dajawaat mm-hmm. kon loolu xam na gëm-gëm la ak liggéey mm-hmm. mais xam na ne maa ngi si xelam mi ngi si sama xel loolu moo waral daje bi amaat tey nii ñu bëggoon xam euh, yan projet ngay préparé fi mu toll nii waaw loolu nag dama koy nëbbu tuuti wax naa ko boros naa la ko ni la taxawal naa mouvement boo xam ne taxaw na Thiès Dóobul la tudd donc taxawal nañ ko ba pare incha allah bés bu ñuy lancé ci dinañ mouvement yéen yéen di ngeen ñëw yéen priorité yi mm-hmm. bu soobee yàlla dinaa ak moom mm-hmm. comme ça ñu ngi war a lancement bi mm-hmm. naa sax mois de janvier bi incha allah bu ko defee li ñu war a bëgg a def lépp si dëkk bi eh, di ngeen ko xam monsieur Bass ñu bëggoon xam sa relation ak Wally Seck gis nañ ni taxawaayam tamit ci spectacle bi macha mu def déplacement Dakar Thiès ngir yow ak jeunesse euh, voilà, je voulais dire que Warisek, c'est mon fils. Hein. Mm-hmm. son, père, John, mm-hmm. c'est comme un grand frère pour moi. Parce que ça fait longtemps, ça fait des années. Mm-hmm. Euh, il a toujours œuvré, lui aussi, pour la musique sénégalaise. Et il nous a beaucoup aidé aussi. Parce que moi, euh, ça fait longtemps aussi, je fréquentais la maison de John. On était encore très jeunes. Et il nous a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. cette relation-là que j'ai essayé de sauvegarder par rapport à son fils aussi Wali. Mhm. Et ça date de longtemps, donc, notre relation. Mhm. Voilà, donc je peux dire que c'est mon fils. D'accord. nous mhm. euh, voulons xam ban message ngay passé jeunes surtout ñoo xamante ne ñu ngi ut liggéey amaguñu ak ñëpp dal ñu nek ci population bi ban message nga lay passé. waaw li may njëkk a lancé rek moy autorité sénégalaise yi. commencé par par président de la république. ñu xamné ne wax dëgg yalla buñ waxanté dëgg. dëkk bi metti na parce que aussi jeunes yi ngi fi. da ngay gis ñuy jàng ba pare yor seen ay diplôme liggéey ñu donc c'est c'est c'est un peu dur mais ñuy ñaan gouvernement bi rek ñu gën a góorgóorlu ci chômage des jeunes bi parce que li ma la wax sànq mooy xale mooy doxal réew ëllëg xale mooy avenir donc il faut ñu concentrer woon ci jàng bi dimbali xale yi bu ëllëgee ñu mën a yóbbu Sénégal fu ñu ko war a yóbbu parce que boo gisee réew mi lu bari mi ngi fiy feeñ donc ndaw yi ñoo ko war a doxal ëllëg xëy na mën na am mu fekk ñu fi xëy na mën na am du ñu fi fekk mais nan tabax réew mi tabax ko si xale yi boobu ëllëgee ñu yor réew mi yor bu rafet loolu la ñuy ñaan état bi di ko ñaan le président les ressources yi nga xamante ni mi ngi si dëkk bi ñu protéger ko pour suñuy doom ëllëg mën a am naataange bañ di awati si géej géej di dem wuti wuti leen di fenn te loolu war naa mën a nekk. ñu bëggoon xam tey jii Thiès lan moo fi problème yi euh, lan la population yi di soxla te amuñu ko. voilà pour ça aussi moom wax dëgg yàlla Thiès y a des problèmes y a des problèmes parce que wax dëgg yàlla euh, autorités yi fi autorités yi fi nekk ah, am na si ñoo xam ne nag jàmbaar lañu sax moom jàmbaar la ñu ngi jàppale le président au niveau de Thiès mais li ñu war a def bëri na loo xamante ni boo demee par exemple fii si hôpital Thiès bi y a beaucoup de problème donc euh, loolu aussi man lu may njëkk a wax di seetlu si dëkk daal mooy les hôpitaux mooy prison yi mhm. te boo demee si prison wu Thiès bi sa yaram dafay daw mhm. vraiment war nañu améliorer surtout côté boobu noonu je sais pas même si bu nécessaire que ñu tabaxoon ay prison yi bees parce que boo fa demee da gis benn chambre mhm. plus de 300 personnes loolu dafa metti hôpitaux yi boo demee da gis ay nit ñi tëdd si suuf du ñu am lal donc man sama problème si côté yooyu parce que yooyu laay gën a saytu si dëkk mooy santé bi moom mooy nit ñi tamit parce que nit doo ko xañ liberté am ba pare du ko teg ci condition yu metti yi mm-hmm. donc man li may ñaan autorité thiessoise yi nañu gën a saytu côté boobu mm-hmm. ñu ñu xool prison yi xool hôpitaux yi xool malade yi mm-hmm. ba jéem a dimbali nit ñi ñu gën a nekk vraiment parce que c'est des sénégalais aussi comme tout le monde te li ñuy wax rek prison jombul kenn donc nag war nañ ci gën a góorgóorlu ba teg leen au moins ci condition yi nga xamante ni condition nit la parce que boo nga ne condition ay nit mhm. donc loolu lay insister président de la république nañu dimbali nit ñi ñu prison yi yi ba nit ñi a nekk euh, mot de la fin ci invité du jour. voilà programme bi ñu am démb ak mhm. remercier mhm. à commencer par le préfet de Thiès bu ñuy jox autorisation di remercier la police nationale parce que démb ñëpp gis nañu liggéey bi ñu def di remercier aussi sapeurs yi les sapeurs pompiers def nañu liggéey bu colossal di remercier croix rouge aussi di remercier aussi population thiessoise bi surtout les jeunes parce que ñëw nañ ci jàmm indiwuñ fi bëri dem ci jàmm mais nag di def mention spéciale Wally Seck parce que 24 décembre bi joxe woon na ko ba pare bi ma ko bëggee xawoon naa xëccoon tamit metti man ak moom ba mu jëloon benn stade ba fay ko dafa delloo ñooñ seen xaalis ne ma nag vraiment comme ni insister nga te sama mag nga dama lay jàppale ñëw démb Thiès tëggal ma bés bi maa ngi koy wax mention spéciale di ko remercier di remercier soxna ay Aïda jabaram parce que soxna aussi sonn na si bis bi def tout woowaale wax ak moom ba mu jox ñu bés bi donc maa ngi ko si remercier moom aussi di wax yal na yàlla def jàmm Sénégal te feej di ñu jëm ci 31 décembre yalla na ñëpp am jamm at mi di ñuy duggu yalla na ci dugg ak jamm te mu gën fop at mi ñuy génn wa salam donc euh, mbokk éditeur ak auditrice yi ñoo nekkoon fii ak monsieur As euh, fii ci Thiès mu dalal ñu dalal équipe bu Allo Dakar TV machallah allah émission invité du jour ñu leen di wax euh, ba la prochaine inshallah